ginnaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci sunu sang sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di siyaare di leen baalu àq di leen baal itam àq di fàttaliku di fàttalee li nu fi indi te bàyyi na fi mu yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala di sàkku itam ci barab bii ñu gën di bàyyi xel sàpp si Euh, balaa ñuy tàmbali sàppe na sàppe bu jëkk bi fees kon ku ñëw nanga nga ñëw euh, ci sàppe si ci kanam loolu it na koy bàyyi xel ndax dañuy bañ bu ñu ñëwee toogee fee ñeneen mën a ñëw di jéggat ni ñu toll dëppuwut euh, dëppuwut ak teggin kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne ñi leen di soññi yéen a yéen ak ñoom yéen a bokk yéen a bokk lu ngeen bëgg lu baax rek ngeen ngeen ngeen bëgg te jii nag tomb bi nga xam ne moom lañu ñu fas yéenee waxtaane junjoon nañ leen ko ca suñu waxtaan ya jiitu muy keroog bi nga xamante ni ñi ngi waxtaan ci wird nee nañ leen woon tomb bi ñu war a waxtaane tey jii mooy mojisaat mojisaat nag bu ko waxee mu nekk loo xam ni e, mooy tëslaay lii tax yonent bi sallallahu alayhi wa ñépp xam ni kii ndawul suñu borom la ndax lii mu man su fekkonte ni du ndawul suñu boroom du ko man ndax suñu boroom du dëggal aji fen ndax dëggal aji fen ay fen la te xam nga ni fen moom jomb na ci suñu boroom tabaaraka wa taala waaye itam day nekk loo xam ni itam nag day lottuloo képp koy contre képp koo xam ne la koy contre dalay lottuloo doo ko man dinañ ci indi ay dalil yu wóor yoo xam ne alxuraanu karim saxal na ko ci yonent yi jiitu woon ba ci yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee ci alxuraan dinañ fekk suñu borom subhaanahu wa taala di wax ci suratul ci mbirum seydina nuuhun alayhi salaatu wa salaam li des mooy kon bay bon nga jéem a waaj te defar ak gaal moom la alxuraan di wax ci wa ooxiya ila nuuhin annahu lan yumina min xawmika ilaa man xat aamana falaa tabtais bi maa kaanu yafaluna wax yu nañ ñu ne ko yow kat saw nit dëddu nañ la war nañ la gannaaw dootuñu gëm ndara ñu ci doon gëm kon nag bul jàq ci li nga xam ne ñu ngi koy def muy yëjji gi ñu lay yëjji ak lor gi ñu lay lor bu ci jàq ndax waxtu wi ñu leen di wara a mbugal waxtu woowu aski na wasnail fulka bi ahyinna wahyinna wala tuxaatim nii fi lladina zalamu innahum muxraxoona léegi liggéeyal ak gaal ñoo ngi gis boo liggéeyee gaal gi nag bul ma wax ak ñi nga xam ne dañoo tooñ weddi la ndax ñooñu dañ leen di labal wa yasnail fulka wa kullama marraxali imara min xaw mi saxiru minhum waaye bu ko mbooloo rombe fa muy liggéey gaal ga ñu koy reetaan di ko ñaawal xaala in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun mu naan leen su ngeen nu reetaanee itam dinañ leen reetaan comme ni ngeen nu doon reetaanee fa sawfa ta'lamuuna di ngeen xam man ya'tii xasaabu yuxsiihi wa yaxillu alayhi xasaabun muqiimun di ngeen xam kan la ko mbugal gu koy gàccaal di dëkk ci moom wa yaxillu te muy war xale ci moom xasaabun ak mbugal muqiimun gu sax xataa sa jaambur naa wa faara tannooru xul ndax man fiiha min kulli sawjayni ni wax ko illaa man sabaxa xale xawlaka wa man amana wa maa amana maahoo illaa xalilan bis boo xamante ni su ndigalu def mbugal gi ñëw na ba nga xamee ni faara bal na ak tënnooru jëmmi sox suuf si ndox mi di ball ci suuf si bu boobaa ñu wax la leen lu ne wut ci ñaar muy ab peer muy aw jiwu nga boole ko sa njaboot yóbbaale te booba ñaanu rek say naa gëm ñu néew lañu waxaala arkaboo fiiha bisimillahi mujriha wa mursiha inna rabbi la xafur rahim ñu daal wax wax naa Nuhun waral ci gaal gi yàgg ñi nga àndal gaal gi yàgg ñi nga àndal <clears throat> bi nga xamante ni sidna Nuhun war na ci gaal gi moom ñi ma àndal nag mu daal di woo doom ji waxaala arkaboo fiiha bisimillahi mujriha wa mursiha inna rabbi la xafur wa hiya tajri bihim fii mawjin kal jibaal wa naadee Nuhu innahu kaana fii mahsin yaa bunayya irkab maana wala takun ma'al kaafiriin bi nga xamee ne war na ci gaal gi mu daal di woo doom ji ni koy yow yaa bu nay irkab maxanaa wala takun maal kaafirina yéegal ci biir gaal gi te bul ànd ak yéefar yi waaye doom ja tontu ko ne ko xaala saawi ilaa jabalin yaxsimuni minal maahi man de bàyyi dama bay bëgg nga bàyyi ma làqutu ci doj wi nga xam ne moom mooy musal ci ndox mi Seydina Nuhu ne ko xaala laa xaasimal yawma min amrillaahi ilaa man rahima tey jii daal na nga xam ne amul kenn ku yàlla di musal ndare ku yàlla yërëm te ku yàlla yërëm mooy kan mooy ku gindeeku ànd ak man dugg ci biir gaal gi bay na waxaala baynahum almawju fakaana min almuhraqina waxila yaa arlub lahim maayki wa yaa samaahu aqlihi waxidal mahu waquudiya lamr wastawati ala aljuudi waxila bu'dan li xawmi zalimina ñu daal di suuf wan na sam ndox asamaan séwétal asamaan si daal di séwét suuf si daal di wan ndox mi mbir ma daal di sotti bato bi daal di teer ci doj wuñ ñuy wax juudi yi ci sil ci réew mi ñu wax xiraaq ñu ni kon ñu tooñ weddi nañ ñu weddi ñàkk na njërmande yàlla te am ama taseet ak moom nga gis ni foofu doomam ji bi mu ko nee ñëwal ci gaal gi daf ko ni bàyyi bàyyil ma làqatu ci doj wi foofu mën nañ te jànge kon ak mbokk li am solo mooy bokk diine bokk pas-pas ndax bu fekkonte ni la ko Seydina Nuhun alayhi salaatu wasalaam waxoon def na ko kon mën naa am dana mën a mucc waaye gis nga la ko suñu borom wax da ko ni laysa min ahli bokku ci saw ñoñ li muy doon doon saw doom nga jàpp ni ku la jegale ku la sori la bokkul ci saw ñoñ kon loolu mooy moo bokk ci mu'jizaat yi nga xam ne euh, sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi koy leeral ci mbirum Seydina Nuuhun alayhi salaatu wa salaam waaye ba tey bu ñu delluwaatee ci alxuraan ci suuratu Shu'araa dinañ fekk sunu borom subhaanahu wa taala di wax ci mbirum Seydina Muusaa alayhi salaam moom itam ku ne xam na ni mook na fi ñu jaar bari na lool. waaye fa ñu mujj mooy ba nga xamante ni waa banu Israël na jiital na leen moo ñamu àndaloon muy Seydina Muusa ba mu demee ba jub géej gi ñuy wax bahrul xarsum la mer Rouge foofee fa la dóore woon yat wa moom la alxuraan di wax ni falammaa taraa aljamhaani xaala ashaabu Muusa innaa la mu mudrakoona mbooloom Seydina Muusa alayhi salaam ba ñu séenanteeg mbooloom na àndandooy Moussa yi dañoo ñëw ci Moussa ni ko ah Moussa Firxawna dana dëb de Moussa tontu leen ne xaala kàllaa déedéet inna mahi bi sa yahdini sama borom laa ndal te moo may gindi moo may wan aw yoon ba mu waxee loolu rek faaw xay naa ilaa Moussa an idrik bi asakal bahra ñu daal di wax yu Moussa ne ko sayet yi nga dóor ko ci géej gi ba mu ko dóoree ci géej gi fan falaxa fa kaana kullu firqin ka tawdin azimin géej gi daal di xar def fukki yoon ak ñaar waa waslaf naa sàmmal aaxari na suñu borom ne nag ñu jégal si nag mbooroom firxaw na ñu jéga si waandee naa Moussa wa maha ajmahin daal di musa Seydina Moussa ak ñu maandal su ma rax na laaxari na ñu daal di labal firxaw na aku gaayam moom itam mu nekk loo xamante ni xisa bu yéeme la boo xamante ni feeñ na ci diggante Seydina Moussa alayhi salaam ak firxaw na buñ delluwaate ci alxuraan ci suratul anbiya dinañ fekk sunu boroom subhaanahu wa di leeral mbirum seydina ibrahima alayhi salaam mooy ibrahima xaala afa taabuduna min dunillahi maa laa yanfaukum cheyan wala yudrikum moo yéen ndax dangeen di jaamu leneen lu dul yàlla loo xam ni du leen mën a jariñ du leen mën a lor uff lakuma li ma taabuduna min dunillah mbassaa li ngeen di jaamu te yàlla taxut afalaa tanqiloon xanaa da ngeen amutum xel ba mu leen waxee loola fekk booba seen buur ba ñuy wax Namruus moo fa nekk mu daal di santaane ñu taal taal bu yànj wut matt mu bari te dugal ci Ibrahima moomu xaalu xarrihu wansuru in wansuru in kuntum faa'iloon lakk leen ko te bu ngeen koy lakk ngeen dimbali ko ci seen yàlla yi ba ñu jëlee naa Ibrahima alayhi salaam jëme ko ca sawara wa sunu boroom daal di yónni Seydina Jibril ni ko gaawal nga dem xeetal jil ma Ibrahima moomu ba Seydina Jibril ñëwee mu ne ko Ibrahima ndax am nga soxla mu ne ko bu dee ju jëm ci yow day awma ko te fekk booba sunu ma Ibrahima xam na ni sunu boroom yónni na Seydina Jibril ngir mu xeetali si ko waaye day bañ dogal boo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala nar na koo dogal ci moom mu koy dogandu te suñu boroom nëppul ci moom mu ne ko bu dee jëm ci yow am na ko mu ne kon ñaanal sa borom mu musal la ci sawar wi mu ne ko saa boroom lii ma nekk xam na ko su fekkee musal ma ma daa gën dana ma musal ba mu waxee loola la suñu borom ne xul naa yaa naaru koo nii bardan wasalaama sidat naa nitam ñi ne ko xaale yaa Maryamu laqad ji'ti shay'an fariyan yow kat Maryama indi nga lu kiimaane loo xam ni kenn mësu ko gis ci famille bi nga bokk yaa xaaru na ndax ko dafa nekkoon magi xaaru na ñu ne ko yow kat sa baay du waaju bon wa ma kaana ummu ko bax yente sa ndey jiitam dum njaalo kot kon foo jële jikko ji ba indi doom joo xam ni amul baay fa asarat ilayhi mu joxañ leen liir bi leen laaj leen liir bi ñoo ñooñu tontu ko ni ko xaaloo kayfa nu kallimu man kaana fii mahdi sabiyan nan la ñuy mën a waxanteeg liir boo xam ne mi ci biir soom di gone gu ndaw di doog a gane àddina laataa sayyidatuna Maryama di wax liir bi ci boppam ni ñokket leeral boppam waxal boppam juróom-ñetti melo yoo xam ne benn bu ne day wane ni ndeyam seet na ci tuuma ji ñu koy tuumal ndax la mu jëkk a wax bu ca yemoon rek mu doy ca mu doy sëkk aw lay mooy inni Abdullahi. lam lay wax daf ne inni abdullahi man day jaamu bu yàlla laa aataaniyal kitaba te indi na ma téere maam dañuy xam ne bu doonee mag suñu borom dana wàcc ci moom téere bu ñuy wax linjiil wa jaala nii nabiyan def na ma yonant wa jaala nii mubaarakan ayna ma kuntu def na ma may ku barkeel foo man di nekk wa awsaa nii bi salaati wa sakkaati ma dumtu hayyan dénk na mooy julli ak a jox asaka diirub li may dund waaye tam wa barran bi wàldati yi te damay rafetal jëf aw yiw jëme ko ci sama waajur wu jigéen yi walam yaj'al ni jàbbaaran saqiyan te defam mooy ñaajaakoon boo xam ni ku texee di laa wasalaamu alayya yow ma wulittu wa yow ma amootu wa yow ma ubxasu hayyan sunu borom dina ma musal bis bu may judd ak bis bu may faatu ak bis bu may dekkalaat ëllëg saalika xiisa ibnu mariam kooku mooy xiisa ibnu mariam xawlul xaq la si fii yam taroon lii mooy waxi dëgg ji nga xam ni moom ngeen doon werante nga gis ni kon mbirum naa Maryama noonu la demee boo gisee euh, sunu borom di wax foofu ni dina ma dinaa ko bis bi may sunu borom dina musal bis bi may judd ak bis bi may faatu ak bis bi may dekkalaat ëllëg ndax nasaraan yi dañoo jàpp ni Seydina Isa yahuud yi ñoo ko rey te alxuraan la mu wax woote na ak loola. dafa wax ni wa bi kufri wa xawlihim inna xatalal masiix ma ibnu maryama rasulallahi wa maa qataloo yaqinan bal rafon lahu li wa kaana Allaahu aziizan hakiiman ndax nasaraan yi dañoo jàpp ni Seydina Isa yëhët yi ñoo ko rey te alxuraan lam wax mooy dañ koo yëkkati ma ngi ci asamaani ñeenteel ja mook Idris kenn ku ci nekk ci ñoom dañ laa yëkkati ndax di nga dégg mu naan waskur fil kitaabi Idris innahu kaana si siddiqan nabiyyan wa rafa'naahu makaanan aliyyan mu nekk ba tey ci mujjizaat yi nga xam ne wàcc na ci Seydina Isa alayhi salaam waaye bu dikkee ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujisaat yi sunu borom wàcc ci moom bari na lool ni ki li mel ni iqtarabati shaati wan saqal xamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu shi'run mustamirun ni ki noonu itam yéefar yi màkka ñëwoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëggoon nga wutal ñu kiimaan goo xam ni dinañ mën a sukkandiku ci kiimaan googee ba mën laa gëm ndax yonent yi la jiitu woon dañoo amoon ay kiimaan mun leen lu ngeen bëgg ma defal leen ko ñu ne ko dañoo bëggoon nga xaral nu weer wii defal na ko ñaari xaaj ñu di ko gis yont bi leen waaw baax na ba ca guddi saa ñu gis weeroom mu xar ñaari xaaj wenn wa nekk ca kaw jëbilu abi xubay si wenn wa wàcc yées doj wa yéerul ñu ngi koy gis mu leen kon ba gëm leen ma ñu ne ko bala ñu laa gëm dañuy bàyyi ba suba ndax gis nañ lu mel ni liñ gisoon démb ba ca ëllëg saa ñu ñëw màkk ca bis ba bari nañ lool kenn ku ne ni gis nañ weer wi mu xar ñaari xaaj waaye yàlla suñu boroom na mul ci ñoom ak ngëm ñu toog réunion waxtaan seen biir ba yàgg ñu ne ko daal xaasaa sihirun mustamirun lii daal ak njabar la goo xam ni bi nga koy def defoo ko yemale ko màkk waaye da nga ko def mu tasaaroo ci gox bi yépp xew-xew bu rëy bii nag suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy saxal ci alxuraan naa iqtarabati shaati waxtu wi ñu diggante woon jot na wan saqal xamar weer wa daal nay xar waaye wa in yaraw bañ gisee ayatan yuridu xarug weer wa wa yaquloo ñu wax ne sihrun lii ak njibar la mustamirun goo xam ni dafa continuer wa kazzaba wa tabaxam ñu gën ko wedd moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ca continuer ci seenu caay-caay ba tey mu nekk ci mojisaat yi nga xam ni wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba tey bu ñu ci hadis itam dinañ fekk xadis boo xam ni Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a toog ci am mbooloo ci ay saabaam ab sàmm bu rëbbi woon am mbëtt daal di koy dikkal bi mu ñëwee mu ne waaw kii toog ñu wër ko moom mooy kan ñu ne ko kii day mooy yonent bi yàlla yónni ci mbindeef yi mu ne ko wallaat wal xursaa laa amanta bi ka aw yumina bi ka xaasa dabb giñ naa ci laat ak xursaa mooy xërëm yi ñu daan jaamu du ma gëm ne yàlla moo la yónni ndara mbëtt mii gëm na ni yàlla moo la yónni daal di sànni mbëtt mi ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ko yaa dëbbu mbëtt mi tontu ko wax ju bér yoo xam ne ñëpp a koy dégg ni ko labbayka wa sax dayta yaa zeyna man waaxal xiyaamata wuy naa la yow mi taaru képp ku ñëw bis penc mu ne ko waaw man ta'budu kan ngay jaamu mbëtt mi ni ko ahbudu allasi fi samaay xarsahu wa fil ardi sultaanahu wa fil bahri sabiluhu wa fil hawaay ruuxu wa fil jannati rahmatuhu wa fin naari hiqaabuhu bi mu ko nee kan ngay jaam mu ne ko man de ki may jaamu mooy ki nga xam ne ak arasam mi nga ci asamaan si ak nguuram mi ngi ci suuf si ak yoonam mi ngi ci géej gi ak ruuxam mi nga ci jaww ji na ci boppam mooy yërmandeem sawara mooy ak mbugalam mu ne ko waaw man ana may kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamina wa xaatama nabihi xat aflaha man sa sadaxaka waxat ba man kasabata mu ne ko yow de yaa yonent borom mbindéef yi yaay mottali yonent yi ab yonent du ñëwaat sa ginnaaw képp ku la dëggal texe na képp ku la weddi perte na ba mu waxee loola ca la sàmba daal di seede dugg ci lislaam ji ba tey mu nekk ci mujjisaat yi nga xam ne feeñ na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp nag <coughs> waaye buñ delloo ci alxuraan dinañ fekk yàlla sunu borom di wax ni qul la in ijtamaatu linsu wal jinnu ala an yatu bi misli haza al qurani laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li sa sairan yow muhammad nee leen doomu aadama yépp ak jinne yépp li ñuy bari bari bu ñu dajale woon bëgg indi lu mel ni alxuraan ji nga indi wala benn aaya rek du ñu ko man donte dañuy dimbalati seen biir kon loolu dalil la buy wane ni kon sa yonent bi ci gën a màgg mooy alxuraanu karim ñu ni muujisat ci boppam nag dëgg-dëgg mooy lan ñu ne al mujisatu hiya amrun xaariqun lil aadati yusiro allahu ala yaddi muddaci nubuwa ala wifqi muraadi tasdiqan lahum fi dahwaahu maa ajisi jamil maxluuqaati xanil ityaani bi mislihi kon dañ naan la mujisa amrun mbir lay doon xaariqun muy aji xotti baax day wuuteeg la tàmm gis yusiru allahu xalaa yaddi muddaci nubuwa yàlla da koy feeñal ci loxo yi koo xam ni day woote ak yonant xalaa wifqi muraadi mu dëppoog na mu ko bëgge tas dii xan ngir dëggal lahum fii dex waaw ci li woote woon ne yàlla moo ko yónni maa aji si jamil maxluuxaat an lil aada loo xam dafa génn aada kon ashihru ak njibar wasax wasax ak luxus yooyu génnuñu aada ndax yooyu ko ko jàng xam ko wa xaraa ibul muxtaraxaat ak woy tumranke yi nga xam dañ koy fent lu mel ni xeeti machines yi yooyu yëpp ba tey génnuñu aada yëpp ko ko jàng man ko buñ ne yu siro allahu xalaa yaddi mu dexi nubuwa kon loolu day daal di génn lu mel ni irhaas irhaas mooy waajal wala lu mel ni karaama day génn wala lu mel ni maona day génn wala lu mel ni istidraaj yooyu duñu mox ji saat doonte xam nañu ni xar nañu baax li tax mooy dañoo feeñ ci koo xam ni wóotewul ak yonant moo tax du ngeen mën a tudde mox ji saat kon baat yooyu benn bu ci ne ñu leeral ko irhaas dañu ne xaariqun yasharu xubaylal bi sati te siisan li nubbuwati irhaas bi ñu ko waxee moom xar baax lay doon yoo xam ne day feeñ ba yonent gi laataa tàmbali ngir fondement ak yonent bi ngir dañ ko koy tamal di ko ko miinal loolu mooy irhas mooy ak waajal bu ko defee moom yonent bi ñu da ko préparer nag terrain bi nag. lu mel ni niir woowee nga xam ni moo daan keral yonent bi sa alayhi wa sallam te booba nekkagul ab yonent ndax may Maysara moo nettali ni bu Musaa ànd ak yonent bi di commercial Sayyidatina Xadijatu di dem saam niir wa day ñëw ba tolloog moom di ko keral loolu mooy war ni kii kon kii kon am na lu ñu koy préparer mooy irhas